waaw tu sais c'est c'est dans votre studio là que laa waxoon ne parrainage. Mhm. man mënuma comprendre nit ñi continuer di d'accord ci parrainage. parenage c'est pa un filtre. parenage c'est pour empêcher. c'est pas un filtre. il faut qu'on fasse attention. yàgg nañ fi am ay élections. au début dina am ñu bëri. déclaré mais à la fin on n'a jamais candidat mm-hmm. et c'est gérable pourquoi ñoom mu quatre cinq six candidats ça quatorze candidats y a pas de problème mm-hmm. su fekkee ne dañu bëgg a économiser sur les coûts des élections ñu dem vers le bulletin unique comme on dit économiser fortement sur le coût des élections mm-hmm. les politiciens qui ont des appareils ils peuvent avoir le parrainage donc duñ ko combattre ils vont juste dire comme ça euh, parrainage et cetera mais duñ ko combattre ils vont accepter le parrainage parce qu'ils vont se dire ñun dinañ am parrainage mais les petits candidats là ils n'en auront pas mais après le truc va retomber dessus regarde ce qui se passe les gars ont parlé de deux parrainages par les élus et un parrainage par les citoyens personne n'a fait aucun calcul on a dit entre 0,6 et 0,8 pour cent quand tu fais les projections sur le nouveau fichier électoral c'est à peu près 43 ah, parce que la population électorale a augmenté voilà. aussi. par les élus ñu laaj ko 13 députés est-ce que les gens ont fait l'effort de calculer ce que un député dans le fichier électoral en tout cas moi j'ai fait le calcul les 13 députés ça représente donc on a une rupture d'égalité entre celui qui va faire le parrainage citoyen et celui qui va faire le parrainage par les élus presque 43 ñu ngi koy laajte 20 000 waaw parce que boo xoolee le quotient électoral bi yóbbu député assemblée nationale boo calculer 13 députés yi 20 000 22 000 à peu près personnes citoyens signature lay représenté donc nga créer un déséquilibre entre kiy def parrainage citoyen ak kiy def parrainage par les élus ba pare nag teg ci jox possibilité les gros mastodontes de de de de la scène politique ñu dem continuer di wut parrainage citoyen parce que kenn terewu leen ko munoon nañ wax ku def parrainage par les élus du def parrainage citoyen donc kenn terewu leen ko donc ils vont aller le chercher pour bloquer les autres pour que les autres ne puissent pas avoir de signature mais ma rassurer leen ma rassurer Pape Djibril Fall waa ji lu mu dajale dajale dajale mënu la créer loo ay doublon parce que loolu du ko présenté comprendre c'est-à-dire c'est-à-dire li ñu ciy daw mooy nga signeel ma signeel keneen mais yow benn bokk yaakaar bu jëlee sa signature du ko présenté parce que mënul présenter citoyen ak élu benn rek la mën a présenter mais Macky Sall daf leen dem leen dem dem leen ut mais dañuy dañuy uti citoyen yi bloqué carte d'identité yi et cetera et cetera mais jeu di que c'est la faute à ceux qui sont allés à ce dialogue politique ñu nax leen ñu koy xool mais personne ne s'est posé la question pourquoi ñu fixer le nombre de députés à treize. pour yow pourquoi ils ont fixé. est-ce que c'est un chiffre qui est sorti comme ça xool leen parmi les acteurs politiques qui étaient dans le dialogue kan moo ci am treize députés assemblée nationale. pile non non du wallu de du wallu de. fële na la ci ci ci ci beneen groupe parlementaire bi d'accord kon taxawu. <laughs> président am kooku.